yàlla may ñu ñu koy fekkee ay at yu bëree bari moom tabaski su ko defee mbokk yi ñu dikkaat ak ci yóbbalu bis bi comme ñu ko baaxoo defee ci waxtu bi rek di ko dellu di jëlewaat ci téere Serigne bu Mbacké boobu ñu woowee Xuratul Ayni wolofal bi te mu nekk ci page 123 ak 124 su ko defee mbokk yi suba la talaata di dajeek fukki fan ak ñeent ci aw tabaski ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn ca gàddaay ga maanaam 1441 hijriye du dajee 4 août 2020 su ko defee mbokk yi sëriñ bi dafay wax ni fukki fan ak ñeent moom bokk na ci bis yi nga xam ne fàttunu nga xam ni baax nañoo jëfandikoo kenn du ko wattandikoo moom li mu fukk ak ñeent su ko defee mbokk yi kon baax naa tàmbalee dara mbaa ñu fas ci ab sëy wala ñu yeggale ko ci wala ñu xarafal ci ay gone mbaa ñu wattu ci moom li mu fukk ñeent bu dee jëmmi talaata ji nag li nga xam ne moom lañ ci gën a wattandiku eh, donte que bis bi rafet na maanaam lim bi rafet na waaye liñ ci gën a wattandiku mooy ñaw ci ak ñawlu ci ak daloo ci mbokk yi yàlla nañu yàlla fayal sëriñ Souhaïbou Mbacké rahmatullah alayhi radiyallahu anhu ngeen baal ñu àq ba subaak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu